mais gis nga euh, transport urbain bii ñu yokkoon fukki dërëm yi ngay wax nga Dakar ndik bientôt dix ans ngeen di ñu paas mm-hmm. bu leen neexee. bu leen neexee mais paas tamit tegu leen ci. non foofu laay jëm si ba dinaa ñëw foofu laay ñëw si dama ne. xam nga ba léegi man man li ma waxoon laay ñëw dama ne man góor xuma bu ma yokkee tarif ci sama teeg ba kenn te nekkul ci këyit gi dañ ma war a sanctionné. man li ma wax leer na mais bu ñuy méngale nag ci ne ña nga yokk xar bi daal ña nga yokk dama ne Dakar bi ëpp na fukki at yokkuñu paas. te ñu toll ah kon seey mais xam tax mun ñoo seey état mooy lu sukkurir. at mu jot danañ jox subvention. ah waaw non ba léegi damay wax ne la bu loolu état kon seey nañ bu yàq. mais man la la daka la dakaar ko man man mun ma ko man man sama pneu bu tojee maa koy jëndi bu ma ne man nag ñëpp a tax may wax mais dakaar bi bu sowee bu pneu bu tojee day aji tànkam yoonu nekku ci de oto bi dafa yéex a fanaan su loolu oto dépannage la oto bu paan Kër Massar oto bi nga war a dépanner jóge jóge jóge dépôt mais bu dee man la privé bi foofu laa koy defee rek ñaari bokkul la bi ci des Dakar lañ état dafa am droit transporte leen gratuitement man ki ki wax loolu kay bañul ku wàññi paas baa ko yow la paas. mais dama ne dañoo am ay lieu de départ. Mm-hmm. boo marché dafa am cahier de charge. waaw mm-hmm. boo marché interurbain moo ko moom. Mm-hmm. ñu def compétition ñu subventionné am ku ko gagné. départ yi région yépp am na Dakar dem dikk. Mhm. ana nañ dem leen place sangam ngeen jël oto du ma leen sax fay ko dama leen yóbbu ma dama leen yóbbu gratuitement. foofu laa ñu waxee xam nga doole boo ko amee tamit du kesoon nu la nekk nga koy defee. am woon dugg boobu maraîcher. non non amu ci droit. amu ci droit amuñu droit dugg foofu la moom kay. secteur privé la secteur privé amuñu droit dugg foofu. waa tout secteur privé la. waaw ils n'ont pas le droit. état dafa tabax 25 milliards. non pas le xam nga. suñu sa dafa aar loola damay wax ne la ma góobalisé suñu sa ne ko. waaw nga xëccu ma xëccu kii xëccu kii xëccu. yow yow kamar nga gañe ko. responsabilité fan la nekk léegi du ci yow. est kenn ñu war a ñu dugal ay kaaram ci biir. di transporter. te du la jox benn du la jox benn mandat. yow la. waaw loolu benn loolu maa ngi koy noté loolu benn point la. mais dama ne. loolu moom benn point la boo demee Liberté Six fa ñu ma doon bu la doon def def def ko ne bëgg ah ñëw leen place sàngam. dëgg client yi def na lañ bëgg ak ak bañ a fay baa mooy. c'est ko comprendre mais boo dee def loo xam ne yow bi yow état yaa ko organisé woon mm-hmm. ba ne man état jël naa sama loxo mm-hmm. man dafa am lu ngeen di jox par jour pour mën a fay sama vingt-cinq milliards yi ma ci defoon. Mm-hmm. waaw boo xëyee yow indi fa mille mille na yeb maa am sama kër maa ngi juste kenn du la tere parce que y a la police derrière Mhm. mais day tax man ma ne loolu yoon la man dama ne jokkooruma te avant tabaski yàgg naa ko wax képp kuy def accident anduma ak yow. c' est vrai que en deux mille vingt deux ba mu amee tamit euh, dugg ñu woon boobu maraîcher. waaw bus yi demuloon dugg boobu maraîcher. Mhm. dañ leen dañu ne képp ku bëgg dem bus yaa ngi taxaw. a dem kaw la xam nga fa xam nga fa nga a dem seen léegi xam nga fi nga jëlee Dakar bi. mais yow boo boo bu ñu bàyyi woon ñëpp jëm foofu. dëgg la transporté ko jàmm na ñooy. mais man li ma mënul d' état nag lu ko neex def mais lu tere nag man nii ma ne lii du yoon taxul na moom man so man nag.